xamante ni yu ama am solo la ci tomb yu wuute am na jotaay bu ñu amal mu aju woon ci pas-pas ca muy loo xamante ni munta ñàkk ci bépp jullit boo xam ne bëgg na ay jëfam sell ay jëfam boroomam nangu ko ñu àndoon ci sëriñ Ahmadou mbakke moom Daarul Muhti jotaay bii ci topp nag ku wax pas-pas xanaa sa xel war xalaat ci jëf te mooy sharia ci jëfit ci lislaam ngir ñu nangu ko bokk na ci sart yi mu dëppook sunna looloo tax solo soosu mu am ñu ne moom it jar na jàngat ca xool ban taxawaay la ci sëriñ bi amoon ci am njàngaleem ci ak dundam jëmmal ko ak ci digganteem ak taalibe yi toppoon ci ginnaawam ñu ciy ànd ak kenn ci boroom xam-xami dëkk bi di sëriñ Fallou busa moom sunu bàyyi sëñ Thierno busa yal na ko yàlla dolli yërmande nekk njiitul école Al Azhar bi nekk cees nekk ilimaan foofi ci Kajoor ñu di ko dalal ngir ñu waxtaane tomb boobu sëriñ Fallou ñu jox la nga nuyoo laataa ñuy dugg ci waxtaan wi auzu billahi min alsheytaan arrajim wa inni uizuha bika wa durriyataha min alsheytaan arrajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala wa sahbihi wa ummatihi alxurri almayamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu waaye di jiital ci nuyoo bi itam a Cheikh mi toog ci jataay bi te jiita liggéey bu màgg bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala taxawaay yi mu am sunu borom gën ko ci dëgëral te lum ci jëf ak ñam ko àndal ñëpp sunu borom defal ñu ko ñun ñëpp mu nekk ibadatan maqbula waaye nekk itam xidma maqbula la dal abdul xadim ñoo ngi koy nuyu di nuyu mbokk yi ñu toogal di sëriñ Mbàkke Abdourahman ak sëriñ Seex Mbàkke Ñang ak docteur Xadim Silla ak ñi fi teew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara jërëjëf euh, sëriñ Fallou euh, ci nuyoo be yu rafet yi Euh, sëriñ Fallu ko wax pas-pas wax jëf ku wax jëf ci lislaam sa xel dem ci sunna ak sharia ne ko yàlla tërale euh, moo tax ñu woola tey ñu waxtaane tomb boobu euh, ndegam minit yi nag bëriwut dañ koy tënk ci ñetti tomb rek bi ci njëkk mooy sëriñ bi naka la naka la ja da ko jàng jàngale ko da ko jàng jàngale ko loolu naka naka naka la feeñe ci ci ci ay mbindal jërëjëf sëriñ bi sëriñ bu mag bi day radiyallahu anhu xawma ko xamul dara ci ak dundam waaye ku ca xam dara danga xam ne ku moyoon la ku jàppoon la ci asariyatul islaamiya ku ko daan dund la waaye ku ca jàppoon jàpp gu tar la itam ci ñaari wet yépp muy la ca la aju ci jaamu yàlla ak la ca aju ci ay jëflante loolu laa wax ne ku ko xam danga xam ne ca loola la nekkoon ngir xam gum xamoon ne xam-xam boobu di ñu koy tuddee xam-xamu fiq te muy pàcc bu rëy ci sariyan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf koo joxoon yitte ju rëy ñi woon ci julli yi itam ba waxoon ne ku yàlla namm ci moom aw yiw dalay baaxe nga am xam-xamu fiq dalay baaxe nga dégg diine may yuridillaahu bihi xayran yufaqihu fi diin bam xamee loolu fa nit ñu baax ñuy daan jaar fépp mu jaar fa ba jël cab yóbbu waayam bu doy sëkk ba nga xamante ni kàngam ya amoon xam-xam boobee fañ fa yeggoon yegg na fa ba daan wax naan wa qaala ma wa qaala malikun kada al qultu fa du satxi lahu istisnaau kon sori woon na ca xam-xam boobee waaye ginaaw aw yiw la ëmbal aw nitam nag mu yéene leen yiw woowu yonent bi waxoon ne sariyan ku ko yàlla jox nammal na la aw yiw mu bëggal aw xeetam yiw woowu wëlbatiku taalif ci moo tax sëriñ bi ci sariyan taalif na ci téere bi mu tuddee tasawudu sixaar ila jinaanillaahi dil anhar wax nañu ma ngi ko taalifee jamono yi mu nekkee Mauritanie mu tollook ñetti téeméeri way ak juróom-ñett taalif itam téere bi mu tuddee tazawudu subbaan ila tibaail maliki dayyaan mu tolloog juróom-ñaari téeméeri way ak benn taalif itam aljawharu nafis fi aqdi nathri al rais mu toll ak juróom benn téeméeri way ak juróom ñett fukk ak juróom benn boole kook nag ubbee ak gàggante yam daan gàggante ak lettre yañ ko daan bind ngir sàkku mu leeral leen wàllaw diine tam aju ci lii ñuy wax yooyu yëpp boo ko boolee lu baree bare bari la lu rëy la loo xamante nii lii ñu bëgg a waxtaane moo ko tax a jóg te mooy xam-xamu sariya waaye ba mu ca ba noppi itam noonu la wormaale woon ñi ko fi jiitu woon te yar woon ngiri fiq jàppe leen ay njiit ci diine ji ba tax na mu daan wax naan a'immati fil fiqhi malikul ali wa saafi'i wal xanafi wal xambali daan tawassul ci seen daraja di yàlla ci daraja boroom ngir yooyee bi malikin dil masaaya saafiin yi abi xanifatin ahmadin mahmud yallaahu kon jàng na ko taalif na ci wormaal na itam ñu ko fi jiitu woon ci biir boroom ngir yooyu ba wax ne fañ yeggoon ci xam-xam sunu borom donnal na ko jox ko ko waaye yëmu ca nag kon loolu kon mooy nazariyaat mooy théorie bi waaye daf caa tënkuwoon nag tënk ca boppam loolu nag ginnaaw sariyan ñaari xaaj la mu lu aju ci jaamu yàlla ak lu aju ci jëflante danañ indi misaal wala ay misaal yu néew ci nim koo woon ci sariya boobu ci wàllu jaamu yàlla rawatina nag julli sëriñ bi moom itam lañ waxoon ci sariyan rek ku ko xam wala nga xam ci moom dara danga xam nam fonke woon julli ngir xam gim xamoon ne assalaatu hiya imaadu diin mooy kenol diine moo tax fonkoo taxoon julli gu nekk akum jàppam la woon te loolu itam fonk sunna moo ko ca xiiroon julli gu nekk daf ko daan jàppal te am na ñoo xamante ni julli yu bari dañuy jàpp mennam jàpp julli ca tusbaar ak takkusaan bu ñu ca mënee julli timis sax def ko ca waaye sëriñ bi fonk gi mu fonkoon julli taxoon na kaana yatawaddau li kulli salaa julli gu nekk daf ko daan jàppal bu ko jàppalee ba noppi itam daf ko daa waajal ci sol yére yoo xamante ni yu yees lay doon wala yu jóge ci am póot loolu itam waajal kim nar a jàkkaar lool te mooy buur bi tabaaraka wa moo taxoon mu koy def waaye bim li muy nekk ca tartar ya ca digg noon ya wut bu waxtu julli jotee moo daa noddal boppam loolu itam nag fonk julli mandarga ca la ci mu wér noddal boppam fonkoon nodd lool itam nag ba tax ne wax nañ ne am na bis mu toog ak kilifa moom sëriñ bi ba waxtu julli jot sëriñ bi junj ne daa mel ne waxtu wi jot na mel ne junj nodd kam dendaloon ne ko te maa jóg seeti diw sàngam mu nodd nee sëriñ bi wëlbatiku ne ko yow mii lu dox sa digganteek nodd li la diina defal lépp ak lim ji ci ngor ak teraanga te yow gisuma loo ko defal lu dox sa digganteeg nodd wax nañ ne dafa yoroon ay yére attaaya jamono jamuy wax loola ba yëkkati baraada ba nar a xel li waaye xaal ja ba mu ko dikkalee dafa bàyyi yëree baraada ba yépp mu fekk kaas yi na rajax mbu ma tool tuuru attaay ja tuuru mu jóg yëkkatig nodda moom Serigne Touba wuti jàkkale loolu nag ah mbokk yi loolu day lu rëy rëy la nodd ak Serigne Touba kon ku ko dégg na nga xam ne ak jaamu yàlla moom sëriñ tubaa fa ko yeggoon sori na yemu ci woon waaye kaana yanzilu li adaa salawaati fil falawaati wal fayaafi mooy digg Manding su daa tukki ba yegg fa su rombee ab dett mbeer bu leer wala suuf danaan fii de li fiy jekk rekk gën fee yell mooy jaamu yàlla moo tax ab tukkeem daan yeex dafay wàcc julli ñaari ràkka naafila ko moo tax bariwaana looy romb ci barab ñu samp fa ay bant di ko bayee ko toppatoo boo laajee ñu ne la sëriñ bi fi jullee woon ba jullikaayam yooyu bari na fu mu soppeekoo jàkka ak jumaa ci biir réew mi loolu fonkoon julli moo ko waraloon waaye itam ba mu nekkee ca xat-xat ya noonu ya daan ko dëkkal ca biir karce ga di ko jox néega boppam teewul loolu lépp nag xam nalam doonoon ak la ko yëkkati woon ba nga xamante julli moomu mosu koo desal gannaaw nee na ci nim ko nettalee sax ba mu nekkee ci biir kàrce ga sampoon na ñeenti bant ngir def ko jàkkaam ci kanam buntu néegam ba mu ko sampee ngir bañ ko fajaar ngir def ko jàkkaam ba ko ko yilif quartier ka gisee dafa jóg ca saasa ñëw fekk ko fa mu nekk moom sëriñ bi koo koy jiite quartier ga yàqate jàkka ja yëmu ca mu damm dammute bant ya yëmu ca mu fa bantee dem sànne ko ca sobe sa yëmu ca mu teg ca kàddu yu naqari nag ne ko laa salaata huna walal islaam lii nga ñu bëggal duñu ko nangu ndax fii julli xewu fi fii lislaam xewu fi loola nag ne ko xanaa dangaa bëgg danga ñoo bëgg a yàqal sun soldaar si li nga bëgg duñ la ko fi may fii doo fi jullee fii lislaam xewu fi sëriñ bi nee na ma noppi xam la ma xam rek nga xam ne yelli sëy ba mu déggee loola dafa ñëw fekk si ka jiite quartier ga fam taxaw ba mu fa daataa jóge la ñëw ànd ak mer moom yelli sëy daal ne ko lu tax nga yàq jàkkaam ji moom mi ngi nuy xëtalut kenn ku bëgg a jàll man a jàll lu tax ngay buddi bantam yi danaa ko fi delloosi wala nga delloosi ko sëriñ bi nee na ma toog di leen déglu ñu nekk ca seen xuloo boobee takkusaan ba timis nee na foofa laa bindee xasida gëma tënkee rabbana axrijna min hadihi alqaryati aldalimi ahluha wajal lana min ladunka waliya wajal lana min ladunka nasira tama tàmbalee woon ko ci raditu an il mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba nee na ba may bind xasida ga ba yegsi ci la huktub salaatan ma salaamin bi alihi wa asxaabihi wajal bihi masjidi rahba qiila ji stujiba laka nee na ba mu bindoo lool ne sunu borom xamal ne nangul nañ la sag ñaan lii ngay ñaan muy jumaa ju yaatu da ko am te loola itam nangu na ci ak dundam te mooy jumaay njaareem ji nga xamante ni yelli say moomu ñëw na moom ma ko doon xulool ba wiisite ko ànd ak sëñ Mat Laamin Jóob ba mu delsee sëriñ bi ne ko ana noo gisee sama jumaa ji ak sama jàkk ji ak sama ñeent bant yama ma sampoon te waaj a dindi ko te nga may xulool jumaa ji ak jàkk ji nu mu def ak jooja yelli sey na ko ji jii day jii day wala jooja matut waañ ji sax mooy jii dal rafetaay bi ak taar bi yegg na fu kawe ga kon loola julli jaralool na ko ba mu nekkee ca xat-xat yooyee waaye musta dañ itam di ñaan boroomam mu may ko mbooloo moo xamante nii duñ bàyyi ginnaaw julli waxtu wu nekk dañuy saxal julli yu juróom wal tusbitan fihi jamaatan tuqiim asalawaati alxamsa dëban yaa muin looloo taxoon mu digle ñu tabax jumaay Tuubaa ji njabootam taxaw ci bañ inauguré ko ci 17 juin 1963 waaye itam fonkoon julli itam moo taxoon mu julli ci biir géej ga loolu dama fi taxaw ab diggante sëriñ bi fonk julli moo taxoon mu julli ca ca kaw géej ga loola nag euh, firnde lañ ci am ndax euh, sunu maam al imaam sëriñ Moodu Xari Faa Ñang Buso nekkoon ilimaani Gédé moo ko nettali te bi mu fi jógee yàggut moo ko nettali te nee na sëriñ bi moo ko nettali xam nga loolu gàtt na nee na bi mu nekkee ci gaal gi moom sëriñ bi dafa am ku doon xelal tubaab yi ne leen kii ma gis day te jublu ci sëriñ tubaa su ngeen bëggee am ci moom aw yoon ba lu ngeen bëgg ci moom man koo def te du ngeen ci am benn jafe-jafe da ngeen di fexe ba waxtu julli raw ko ne su ngeen ko defee rek li ngeen soxla ci moom dangeen ko am ci lu yomb tubaab yi ne waa joojee am nañ ci jaaxle nag ci jëmu ji ndax tëj nañ ko ci barab bu xat ngir gàllankoor ko ngir bëgg bu julli jotee du mën a génn julli ji loolu def nañ ko de waaye seetlu nañ nag ne fuñ ko tëj lum xat-xat bu waxtu julleem wii jotee dañuy gis jekk-jekk gis mu ne mëll ci biti te ñun duñ ko tijji kon nag am nañ ci moom jaaxle ah waaja ne leen ci kaw nag loolu ñu dégg ci ne tubaab yi seen jëflanteeg sëriñ bi daanañ ci diisoog ñoo xamante nii buñ dut ay yéefar itam buñ dee ay yéefar amoon nañ xam-xamu diine yi lislaam buñ nekkoon mënoon nañoo nekk itam ay jullit yoo xamante nii dañoo jaay seen ngor jaay seen diine ndax kii li muy bëgg a wax tubaab yi ku ko dégg xam ne am na xam-xamu diine dana leen li ngeen bëgg day ci waaju mel nii ci pexe ngeen koy mën a amee mun te ñàkk ngeen tëral pexe pexe ma nag kaay leen ma rëddal leen ko dangeen di fexe ba waxtu julli raw ko te waxtu julli ci jullit yi ñaari waxtu la al waxtul muxtaar ak al waxtul daroor yi kon kooku ku nekk xam ne am na xam-xamu diine ne leen waxtul muxtaar moo gën a gàtt waaye seet waxtu muxtaar wa nga xam ne moo gën a xat jël leen waxtu takkusaan jël leen waxtu takkusaan ndaxte waxtu muxtaar dafa xat bu ngeen jëlee waxtu woowu ngeen fexe ba fi mu nekk ngeen fopp ak jigéen teg fa dana jóg di jàpp xam naa ne dana jàpp ndaxte waxtu nekk da koy jàppal bu jógee di jàpp ngeen fexe bu jàppee ba noppi ngeen fexe jigéen joojee jonjoog moom dana fa nekk di baamtu njàpp moomee ba waxtu muxtaar raw ko te boobaa lu ngeen bëggati ci moom da ngeen ko am kon kooku ku nekk xam na ne am na xam-xamu diine gaaña topp pexe mooma sëriñ bi nee na bi waxtu tusbaar jotee ma jàpp julli na ma ko daan defee kenn defuma dara kenn yàqaluma sama julli ndekete daa am lu ñuy nekk mooy waxtul muxtaar li salaat lansr nee na ba waxtu tàkkusaan wa jotee nag ma jóg di jàpp fu ma jàppee jigéen joojee ñëw laal ma may baamtu jàpp ma ba waxtu muxtaar wi xat nar a jàll nee na ma sàkku ci sama boroom ci ma sànne der bi ci géej gi dem julli ji ah nee na nag ba ma yeggee foofa nag ba ma jàppee ma njëkkanteeg jigéen jooje jàpp-jàpp mu gaaw ba mu daataa yegg si ma këf sama der sànne ko ci géej gi ca peelu ja julli kon nag kon nag waaye nañ xool lam ca teg nag lam ca teg sëriñ moo Khari nee na sëriñ Tuubaa ko qaala lil jildati laa tasbiq ki safiinatu fa kaanat tajri mislaha nee na sëriñ bi dane dafa digal der bi ne ko gaal gi bu mu la raw yow der bi vitesse bu daw na koy daw der ba làng gaal ga di daw na muy dawee nee na sëriñ bi ne ko wax sëñ Modou xëri ne ko su ma defutoo noonu day waxtu wa dana ma raw te boobaa lañ bëggoon ci man danañ ko am waaye mu tegalaat ko ci itam lu gën a yéeme ne ko kat xanaa xamoo ne day kero ba ma génnee ca sama kër ga ca Mbàkke Bari jëm si ci tukki bii ba bis bis boobu may sànni dar ba ca kaw géej ga ngir julli moo ne defuma fii loo xamante ni lislaam dana sàkku ci man may yeesalam jàpp kon lu taxoon muy jàpp nee na waaye damaa jàppe julli muy ak gan goo julli gu ñëw dama ko jàppe gan gu yees te gan nag dama koy terale yàpp wata wu yees waaye dama ko jox yàpp wu màggat mooy dama koy julli gu nekk daa koy jàppal njàpp mu yees kon kooku fa ko julli yeggoon sori na waaye mu tegaat ca loo xamante ni itam mu wax sëñ Modou xëri na ko bi mu nekkee ci tukki bi moom sëriñ bi ak natt yi li muy bari bari ak li muy tar-tar benn natt boobu muy liñ ko bëggoon a gàllankoor ci waxtul muxtaar wi mu sàkk boromam ci boromam sànni der bi ci géej gi nee na boobu rekk la masa sàkku ci boromam ci mu jàppale ko ci anam googu ci mu sànni der bi ci kaw géej gi waaye yi ci des yépp daf daan bàyyi ni natt bi dikkee ci moom dawee ci moom ba jeex tàkk kon nag loolu boo gisee ma koy nettali mooy xamle fa mu tegoon julli ndaxte bu doon saamaas gi dañ naan am nañ gànt rek am nañ gàllankoor bëgg na maa julli mënu julli kon julli wàcc na ma waaye ñu xamee cam ngoram ga ca la xam ne alkum lay di moom la ko seere loon bañ ko yóbboo mu ne law saa adamal xuróoji lama qadaru ala ixraajihi min diyaarihi alkum lay di borom gis gis la ci naari gànnaar yi nee na woon kii ñu yóbbu day dañoo yaakaar ne dañ koo forcé yóbbu maa ngi leen di xamal ne su ko neexutoon du génn këram yii dafa bëgg a dem dem loolu nag bi mu nee der bi bu la gaal gi raw su ne ko woon dëppal yow der bi itam wuti waaxab ndakaaru mu ñibbi de tubaab yo fay tose naan ma ngay dem ma ngay dem donc waaye nag ngoram ak contrat bi mu signé digganteem ak boroomam moo tax mu dellusiwaat waaye su ko neexoon ñibbisi kon loolu dafay tegtalee ni mu fonke woon julli te bu waxtu julli masaan jot itam daawut may kenn muy jëf jenn jëf ju dul julli ba waxtu wa weesu ku xamut loolu sax su fa defee lu dul noona ngir réere aadaam jooju bu dikkee danaan ana fu mu toll woon ba waxtu wa jotee ca rabat ma wala sàkket ma ñu wan ko ko mu teqar ñi waat loola ne ko demal julli ji bu julli jee ba ñëw mu ne ko rabataat ko wala sàkketaat ko daana wax ñi ko ay taalibeem yi tam ne leen ku julli dox sa digganteeg soxlay àdduna yàlla dana la jariñ ci julli googee jariñ ca soxlay àdduna ya waaye ku soxlay àdduna yi dox sa digganteeg julli nag doo jariñu ca soxlay àdduna ya doo jariñu itam ca julli googee waaw jërëjëf sëñ eh, sëñ Fallou eh, waxtu wi pour ñu gën a sàmmanteeg moom wane nga ni jëmmale wàllu jaamu yàlla Euh, joxe ci julli joxe ci taqoog laab joxe ci euh, fonk yére yu euh, set su koy julli ak fonk juma ba eggoon ci teg ay bant foo xamante ne sax mbooloo mu ko jullee ndool amu fi muy ca géej ga ak ni mu jullee ci géej géej yooyu yëpp waaye ci wàllu jëflante diggante doomu aadama yi ndax ndax am mën nga ñu cee indil ay misaal yuy wane ni doon na ci jëmmal dund diineem waaw moom day ci jaamu yàlla googu daala ci tuddal julli rek mhm. waaye boo ko gëstu woon ci koor itam noonu la ko fonke woon mhm. boo ko gëstu woon ci aji màkk gi mu bëggoon itam noonu la ko fonke woon mhm. ba ak njabootam taxawal ko ci ginnaawam soo ko jëfle woon te itam ci mbooleem lu ñuy tudde ak jaamu yàlla itam da nga fekk ne noonu la ca yeggoon noonu la ko fonke woon noonu la ca tare woon tam kon nag ci jëflante yi ñu tëbloo lépp kon te ñëw ci jëflante yi jëflante yi itam lépp loo xamante ni danga ko daan jëflante muy jaay ak jënd muy fas ab sëy muy naka noonu taxawal al xuduudu sarciya yépp loo xamante ni mën na ko jëf jëfal boppam daf ko daan jëfal boppam lépp loo xamante ni itam dafa xew ci ak njabootam itam daf daan digle ñu jaarale loolee ci kawam masalan ku ñu war a dóor yar yoon kooku daana digle ñu dóor ko yar yoon ba léegi sax ci yenn pénc yi nga xam nente ni ci ay péncam la ña ngi fay doxal lu mel noonu kon ñu xam ne kon noonu mu ci ak jaamu yàlla bañ andil la ci misaal yooyu itam noonu la tënkoowoon ci wàllu muamalaat waaye itam noonu la ko daan digale ay taalibeem xëy na mooy ñaareelu tomb bi insha mhm. nga oh, oh, waaw léegi euh, xam yàlla sax mën nañoo wax ni nit kii ak boroomam waaye société bi amal njariñ askan wi euh, fexe ba euh, ñuy dund seen diine lu leen gën a lu leen di gàllankoor du am yooyu it taxaw na ci taxawaay bu am solo tukki bii rek benn la ci ndax bu demutoon boobu tout maara day taali euh, sunu diine nii mu yaatoo fii ci réew mi ak niñ ko sañ dundee mën naa am du ne amee kon ci wàllu jëflante bi mën naa gën a yaatoo léegi njaboot gi naka naka la ko lañ ci doon toqantale waxuma njabootu boppam gi gi mu nii rek euh, gu deret waaye euh, ñi toppoon ci ginnaawam. waaw jërëjëf ndax bi muy waaj a dem ci géej gi. Mhm. bind na ab dénkaane. Mhm. dénkaane bu gudd a gudd la waaye dañ ci tibbi la ma waxoon ne. Mhm. yéen samaw nit nangeen ragal yàlla te topp ko ci lim leen di digal te bu leen wuute ak i ndigalam. na ngeen di moytandiku ay tereem fu leen yàlla digalee na leen fa fekk ngeen nekk fa fu leen tere itam bu mu leen fa séen waaye na ngeen di jàngal seen ak njaboot seen warite fi diine na ngeen di jàngal seeni soxna képp ko aju ci yéen nangeen koy jàngal faratey jëmmam bu ngeen ko defut ëllëg bis penc yowmal qiyaama sunu borom dana leen ko laaj loola benn la ci dénkaane ya loo xamante ni rod na ca dénkaane bi mu defoon njëkk muy ñëw ci dem ci géej gi dénkoon na itam képp ko aju ci moom ci ay way ne leen wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mustabi nee na dénk naa leen yéen ñi aju ci man ci lu nëbb ak lu feeñ ngeen bàññi bàyyi lu araam ak lu luñ sib ak lépp loo xamante ni tam sax dafa lënte xamu leen dafa araam wala dañ koo sib na ko bañ man alima al jamia fal yufaariqa wa man biha jahila fal nee na ko yàlla baaxee nga ràññee lu araam ak lu ñu sib ak lu lënte nee na ko bàyyi ca saasa koo xam ne réere na ko nag na seeti ku ko xam mu ànd ak moom tey roy ci moom naka noonu itam noon la leen dénkoon ci ñuy tënku ci sariya al mutahara ak la jàppandi min al xaqiqati al moo taxoon mu ne woon amala kaatibu hadihi al xuruf jamia bi muraaati ma katabahu huna ki bind araf yi mi ngi digal mboolem taalibeem yi ñu sàmmonteeg li muy bëgg a bind fii fa in imtasalu falahum suñ toppee ndigal ba def ko loola kon moo leen arrangé mooy seen njariñ wa illa fa alayhim suñ ko deful nag lu leen ca fekk ñoo ko teg seen bopp mu jiital ca dénkaante ba dénkaane ba ne yaa macsara atbaa'i istami'u waqbalu minni hada laa tuxaalifu sariata almutahara maa ma tayassara lakum min alxaqiqati almunawara yéen ñi ma topp déglu leen ma te nangu lii ma leen di bëgg a wax bu leen di wuuteeg sariyaan mu tëhëra boole leen ko lépp la jàppale itam ci mu munawara ñu ne ko asariyatul mu tëhëra mooy lan mu ne mooy al imaanu bi tawxiid na ngeen am pas-pas bu mel ne bii fi sëriñ ahmadu doon waxtaane léegi te jànge ko ci xam-xamu tawxiid wa niyatul xayri itam ak ngeen di yéene aw yiw ñépp wal islaamu bil furuu il fiqhiya ngeen di jëfee seen lislaam di julli di woor di natt asaka di aji màkka bi ma tayassara lakum min alxaqiqati al munawara min qasdi wajhillah lépp lu ngeen def itam na ngeen ci bàyyi xel yàlla moo xam lu ñu leen digal na ngeen ko def ngir jëmi yàlla lu ñu leen di tere itam na ngeen ko bàyyi ngir jëmi yàlla te nee na bokk na ci ndigal yéen rek fi'lul waajibaat wal mandubaat ngay def warugar ya muy farata ya ak sunna ya wa islaaxuha bil mubaaxaat mu ne bokk na ci itam tere yi nit ki di waccandiku lépp lu yàlla tere ci sariya te wattandiku woowu itam mooy lépp lum araamal nga ba ko lépp lum sit nga bàyyi ko kon nee na na ngeen jëfe ndigal loolu te yem ci sariya ca laa leen loo waaye nag man ngeen cee boole xaqiiqa te bañ a jéggi ñaar yooyu jëm ci yeneen ndax seen am na lu lu ñëw ci seen kanam nag loo xamante ni bu ngeen ca yeggoon da ngeen xam lii ma leen di woo jëme leen ci lan la leen di jariñ kon nag fala taxurrannakum alxayaatu walaa wala yaxurrannakum billahi alxaruur bu leen àdduna war bu leen seytaane war istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi na ngeen di jéggul borom bi te tuub jëme ci moom ndax fa inna amaamakum zawajira yambaxi tanbiihu alayha wa tanabbuhu laha am na luy ñëw ci seen kanam loo xamante nii kat ay jàjje yoo xamante nii war ngeen koo bàyyi xel wallahu ala ma naqulu wakil feneen fa ñu laaj ko luy sariatu mutahara mu ne mooy li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci téere yi jóge woon ci asamaan ñu ne ko luy alxaqiqatu munawara gi nga bëgg ñu tënku ca mu ne mooy ma sabata fi lawxil mahfuz sawa nazala bihi alkitaabu aw lam yanzil bihi la nga xam ne ma nga ca àlloy mahfuz moo xam wàcc na ci ab téere wala wàccut waaye na ngeen xam ne nag li leen seen borom digal yéen taalibe yi ab yonentaam digal leen ko ma digal leen ko mooy at tamassuku bi zahiri saria wa hiya sunnatul xara mooy ngeen jàpp ci zahiru saria te mooy sunna si yonent bi alei salatu wasalaam fa man imtasala minkum falahu wa man lam yamtasil fa alayhi ku jëfe ndigal lii jëriñ boppam bu njëriñ la dikkee du ko séq kenn waaye ku ko def itam lu ko ci fekk mooma loolu nag ab tëkkoo la mu jox waan beneen dénkaane boo xamante ni itam nag lu am am solo la suñ jamono ji sëriñ Seex mhm. lii muy bëgg wax mhm. euh, ab dénkaane la boo xam ne sëriñ bi da ko defoon ca jamonoom waaye jamonoom itam yegsi mhm. dana woon ay ayyuhal ixwaanu uusikum bi an tataaddabu ma abnaa il axira bil ilmi wal amal maa ngi leen di dénk ngeen di wane ay teggin seen digganteek doomi soxna yi loolu koy tudde man waaye doomi soxna yi nga xamante nii nag yaa ko jàppe man mooy doomi soxna yi nga xamante nii jàng nañ sariyan te nanguwuñ tasawuf nanguwuñ baatin nanguwuñ alxaqiqa ñeneen ñooñee bu ngeen di jëflanteeg ñoom na ngeen di jëflanteeg ñoom bil ilmi wal amal ci xam-xamu diine bu wér bu zaahir ak jëfi diine ju wér ju zaahir ndax fa innahum laa yarawna illa hadayni nee na doomi soxna yi nga xamante ni jàng lañ diine de waaye sariya zaahiru sariya lañ lañ jàng ñooñee ñaar yooyu dong lañ nangu mooy xam-xamu diine ak jëfe ko te bañ leen a wax loo xamante ni dafa aju ci baatin ba tax na képp kuñ gis ngay farlu ci xam-xamu zahir donte ni danga sàggan ci sab xol itam ñu boole leen ci sa aw nitam ñu boole la ci seenu nit waaye képp koo xam ne gis nañ mu mel ne danga sàggane xam-xam boobu zahir dont ne farlu nga ci sa xol laabal ko itam ñu jàppale ko sàggan kon nag nu ngeen di def ak ñooñu mu ne kon ñooñu na ngeen leen di laabire mooy ngeen leen di woon zahir suñ xam te bañ leen woon baatin loolu nag la ma cey dégge mooy jamono jii kuy jëflanteek nit ñi nga xamante nii doomi soxna lañ jàng nañ diine waaye nanguwuñ tasawuf nanguwuñ xaqiqa ñooñee boo dee nett li ay jaloore ak ki karaamaat ak kiimaan jërul te jëmale ci ñoom lañ bokk te penc mépp bokk ko te mooy zahiru sariya bu ñuy wax ak ñoom nañu wax ak ñoom loole ca penc ma suñ dikkee nag ci li nga xamante ni ñoo ko moom lu yokk suñ pas-pas suñ digganteeg sëriñ bi ak suñ digganteeg suñuy kilifa nag ñu waxtaane ko ci seen biiram néeg ak suñu ëttab bopp suñ defut lu mel noonu kat ñooñee mën nañ leen a wax loo xamante ni seen xol dana ci am nu muy jiix jeexa wala ñu ñàkk koo gëm te buñ ko weddee alkane mën lañ caa fekk te boobaa ñun ñoo leen ca dimbale kon nañuy won ñi nga xamante ni gëmuñ lu dul zaahiru sariya nañ leen di won sariya bu wér cëng mm-hmm. te bañ leen a won loo xamante nii kat mën nañ cee ñaaw njortu ci e, kilifa gu baax goo xamante ni sunu borom moo ko wóolu ba def ko ba fab ko muy barab bu muy teg ay secret te loolu ku ko xamut ba wax ci moom loo wërta wax wala jëf ci moom loo wërta jëf al ko la caa fekk te ñàkk xam moo la ko yóbbee kon ko xamut nag dañ koy muñal te di ko laabire ndax nee na ci ngeen di mën a mën a tàppe xol yi way gëm yu góor yi ak yu jigéen yi te loolu itam bokk na ci ad diinu nasixa te mooy diine laabire mu ne ku ne nag ku ne ko nag waaw nan lañ leen di wane loo xamante ni zahir la mhm. te am leneen lu ñuy jàpp ci biir mhm. loolu kat dafa xaw a nuroo ngistal mu ne déedéet mhm. bokkut ak ngistal loolee nga leen di won da nga ciy jublu laa biire leen ngir bañ ñu contre lu lu ñu loola tax ak bëgg a tàppe xole jullit yi ngir ñu ànd ngir booloo jullit yi ak booloo xeet wi nekk benn te loolu nga ca yéene nag lu baax la luy boole jullit yi loolu lu baax la kon loolu lañ ca jublu waaye du njistal njistal mooy nga bañ caa jublu yàlla te lii yow mi ko yéenee di leen won nañ xam da nga bëgg ñu bañ a contre ku ñu wërta contre ba cay alko te boobaa ad diinu nasiha joojee da nga cay génn boo ca jubloo yàlla daal loola taxoon ñu daan wax sellal te sellal waxtu nekk dañ koo soxla muy lu ama ama solo muy dénkaane boobu am na solo lool Euh, xam naa li ñu desee ci waxtu bariwul waaye danañ ci taxaw tuuti rek benn minute euh, mooy ni danga wax ni dafa sëriñ bi dafa wax ni ñi nga xam ne jubluwuñ xam-xamu euh, tasawuf ak yu mel noonu nañuy waxee ñoom ci xam-xam ak li liñ xam ci charia ci li feeñ nii muy lu ama am solo waaye loolu tamit mënees na cee déggee ni kon dafa mel ne borom xam-xam ñoo war a wax ndax bu nee dee leen wax ak ñoom ci xam-xam kon ku amul xam-xam daa war a noppi kon ndax mu nekk nii mooy daa am ñuy wax ci waruñoo wax ak ñu war a wax ba noppi waxul ala kulli xaalin euh, loole maam ñu nettali ne maam xaadi ma jaxati kala ko waxoon ci naxwu la ko waxoon sax waaye mën nañ ko def istisaat fii dane woon ku newul na bul ne nga mooy ku jàngut naxwu bul jéem ubbi saw làmmiñ di jéem a wax ndax ci tooxi doon ngay dëkk ci làkku arab waaye itam xam-xam ku am xam-xam moo ca mën a wax ku amul xam-xam al toppe lay doon dafa war di dégloo waaye nag buñ fa bëggee jëlee lu mel noonu nag mënuñoo ñàkk wut pexe nag buñ fa bëggee jëlee ku jóg wax buñ ko fi bëggee jëlee mënuñoo ñàkk wut am pexe pexe mooy lan nañ sàkk boromi xam-xam yoo xamante nii dañ leen di dooleel jox leen jumtukaay yi xarala yiñ mën a jotle seen message fu ñu déggati ku wax loo xamante ni tegewut ci aw yoon ñu delloo si la xamal ne liyee yoon bil xikmati wal mawisatil xasana duñ dóor duñ saaga duñ xuloo waaye ala kulli xaalin àdduna lu baax ak lu bon ñoo fi làng di dem mosu fee jóge itam ndax bi fi yónnent bi nekkee iblis ak mbokkam ñi ngi fi te duñ fi jóge itam ilaa yawmi diin ndax saytaane moo ko ñaanoon borom ne ko bàyyi ma fi may yàq ba keroog bis pénc mu ne ko bàyyi naa la fi kon lu bon du fi jóge waaye lu baax itam du fi jóge kon ñii nit ñu yore lu baax itam nañuy tasaare seen lu baax mu làng ak lu bon loolee xëy na du ñàkk ku yàlla baaxee mu xam ne liy lu baax tënku ca liy lu bon mu bàyyi ko te ñu koy def nag ci ñàkk yàkkamti ndax ñi nga xamante ni ñooy tasaare ak mbon ci àdduna bañ koy tasaare yàkkamti wuñ kon yàqute goo xamante ni damay wax ne fa fasaadun umruhu qarnun min az-zaman yaxtaaju ila islaahin umruhu qarnun min az-zaman yàqute goo xam ne daw na ci kaw suuf lu tolloog téeméeri at boo ko fa bëggee jale da nga dawaat lu tolloog téeméeri at ngir jagal ko waaye boo bëggee na tey laa koy ji tey mu sax tey du yombe noonu kon nag doonu ne ku jóg war a wax waaye ña war a wax nañuy wax te di ko teg ci xam-xam ak i teggin wa bil xikmati wal mawisati alxasana buñ nekkee mbooloo itam moo gëm gën bu leen ko kilifa yi sante itam moo gën jërëjëf euh, leer na lii de moom yeneen jotaay la laaj ndax dafa dafa yaatu dafa xóot dafay laaj ràññee kiy wax kan la kan lay waxal loolu lu ci am solo la waaye kiy diglu tamit moom kan lay diglu kan la ban wàccuwaay la am ci askan wi ndax ay waxam day engagé askan wépp walla déet yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni yeneen jotaay la laaj waxtu bi dafa mel na jeex na imaam kàddu gu mujj waaw waaw léegi waaye ci biir ci biir ci biir ndigal yooyu ak uh, wammat gi hmm. uh, yan nga ci am loo ci dolli waaw moom day dafa mel ne suñ digloo dégloo sëriñ bi ba léegi mësta jóg ci itam di ñu teg ci aw yoon ndax bam ñu tënkee ci sunna ci lañu teg ci aw yoon yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakumu bima bihi xayrul wara jaakumu na ngeen di jaamu borom bi te teg ko ci sunnas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax nee na kooku de ku ko doyloo yegg waaye ku ko fi ne ñukk itam doo yegg mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sunnaam ku ko doyloo yegg fa nga bëggoon a yegg ci mbaax waaye ko fi ne doo yegg huwa allazi bihi wasal li rabbihi wa man gani fasal moo taxoon taxoon mu teg ci ne nangeen di farlu ci topp yàlla ci jëf lu baax te teg ko ci xam-xam ndax yàlla ma tax ngeen di jëf am na ci ay xéewal yoo xamante ni loo xamante ni du jeex te kam ko dencal mooy kuy jaamu yàlla teg teg ko ci xam-xam kon lu mel noonu ca la jaar waaye te mu tënkoon ay taalibeem ci ne na ngeen di topp ngiram imaamu Malik ndax ginnaaw ci sunna sariya la ñuy wax dañoo tànnal ñuy topp ngiram imaamu Malik noppal ñu itam ne bu ngeen gisee may def loo xamante ni fekku leen ko ci ngiram imaamu Malik yéen digal naa leen ngeen topp ngiram imaamu Malik ndaxte innaha sariyatun mutahara ndax am na yu may def yoo xamante ni samay jagle bopp la bu leen ma kon na ngeen topp imaamu Malik kon li nga xamante ni moom lay tënkee te na fukki mbir ci tënk ci diggante Serigne Touba ak Sariyan la ca jiitu mooy a sayx alxadima radiallahu anhu kaana mutadayinan jiddan wa mutamassikan bi sariati al islaamia fa lam yaktafi bi nadariyat bal tabaqaha fi xayaatihi bi ibadatiha wa muamalatiha la ca jiitu mooy Serigne Touba moom wàcc na jàppoon na diine ji jàpp sariya bi yemul ci théorie waaye daf ko jëf ñépp gis bu ñaareel ba mooy ginnaaw ba mu ko jëfee mooy ca dafa digal képp ku aju ci moom mu topp zahiru sariya al mutahara boole ko mu xaqiqatu munawara te bañ koo jéggi loolu itam digal la ñetteel ba dafa taalif ay téere ngir jàngale sariya al islaamiya bind ay dénkaane ngir jubbanti nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim ñeenteel ba dafa digal képp ko aju ci moom mu jàng xam-xamu diine jàngal ko ak njabootam jàngal koy soxnaam jàngal ko képp ku aju ci moom bu ñu ko defut ëllëg bis penc yàlla dana ko laaj danañu ko laaj juróomeel ba daf ñoo jubbanti ñun ñëpp ci ñu tënku ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tax mu ne woon ilallahi bil quraani wa sunnati allati hadat nii saraftul kulla wal xalbu xaasion nee na ñëpp ñëpp kenn laa ci bàyyiwut ñëpp laa orienté jëmaleen ci alquran ak sunna juróom benneel ba mooy képp kuñ gis muy wuuteeg sariya te na ci sëriñ bi la aju na ko wóor ne moom moomee ak lam fa indi doxandéem la ci yoonu sëriñ bi lii moom nay leer te bokkul ci ay principe am ku ku nekk ab doxandéem nag ci mbir andi fa lu ñu xamutoon tam moo xam nga tey ko wala nga teg ko ci njuumte yow la ñëw laaj la ngay def foo ko jëlee waaye duñ ko laaj sax sëriñ bi nga xamante ni li mu defoon lépp lu leer la te ci sariyan bu leer la ko teg te bari na nag lu ñuy gis ay wàcc yoon yoo xamante ni mi ngi xew te ña koy def bëgg na ci sëriñ bi lañ àndal nañ leen wóor ne loola seen yëfi bopp la juróom-ñaareel ba mooy jot na sëkk nag ñu dellusiwaat ci njàngaleem njàngaleem ma nga xamante nii lii ñuy gis ci jamono ci ay xalaat yuy mabbu yoonu nit ñu baax ñi loolu lépp moo ko njëkkoon a souligné waaye jamono jàpp na nit ñi ba daanaka loole sax nafaraat ko ak di ko leeral nit ñi am na ñoo xamante ni defatuñ ko am na ñoo xam ne ñemeetuñ ko kon lu mel noonu itam war nañoo delluwaat ci njàngaleem mi te xam ne ba mu koy bind ak di ko dund bëggoon ñu jaar ci la ngir jële fii li nga xam ne mooy ay xalaat yu jóge ci biir yoon wi sax te dëkkul xalaat yu baax ak yi jóge ca bitti loolu lépp amoon na ci saafara te bindoon na ko loole nañ ca dellu juróom-ñetteel ba mooy jot na kon ñu taalif ay téere wut itam ay mbind yu ñuy tasaare ci mbooleem làkk yi te tasaare ko ci àdduna si li bayaani maa kaana yaddu naasa ilayhi min as-saadati dunyawiyya wal uxrawiyya ngir leeral nit ñi lan la sëriñ bi daan wootee te lam daan woote weesuwut lu lu jëme nit ñi seenu texe ci àdduna ak àllaaxira juróom-ñeenteel ba ala siyuuxi wa atbaa'ihim an yataallamu diinahum wa an yutabiquhu fi amaalihim wa an yansurul ñi nga xamante ay kilifay diine lañ ak ñi leen topp ak seen njaboot ñépp war nañoo maasewaat nag nafaraat seen diine di ko jëfe ba noppi fas yéene aw di gën a tasaaroo ci biir société bi ak biir jullit ñi fukkeel ba taxam ne mooy mujj nag ci waxtaan wi mooy ala muaaridi turuqi wa man waalahum an yaarifu al araba laysu bi sayin wala ala sayin qabla al islam wa an al araba laysu zuamaana fi diin bal hum surakauna fii ñi nga xamit maa ngi sàkku ci ñuy jublu tarixa yi tey ay sénégalais di ay jullit te nekk senegal ak ñi nekk ci tariixa yi te jublu te bokk ak ñoom jubluwaay nañ xam nag ne al arabu laysu bi sayin wala ala sayin qabla al islam arab yañ topp avant l'islam di ñëw nekkuñ woon ci dara doon tooñ doonuñ woon dara nekkuñ woon ci dara njëkk lislaam kon bu ñu amee teraanga ñu leen tudd lislaam a tax suñ nee fa ñukk lislaam jotewuñu ñoom lenn wa anna al araba laysu zoama ana fi diin lii sama waxi bopp la arab yi duñ suñuy kilifa ci diine waaye lenn ca ñoom dañoo bokk ak ñoo ñun diine ji bu nekkul suñuy kilifa ci diine ji nag am nañ suñu kilifay bopp te jëf nañ ci lislaam nag loo xamante ni man gisaguma ko ci jëf ndax lislaam yàgg na min la dun aadam alayhi salaam ila sayidina muhammad alayhi salaatu waaye fum mu fi jaar nag ñooñe sóob sóob nañ ko seen sóoba bopp sóob nañ ko seen sóoba bopp mooy am na lu ñu ca marché ba yóbbaale ko ca kon loole itam nag nañ xam ne bu ñu yegsee Sénégal nag sun maam yi ak sun mag ñi liggéey nañ ci liggéey bu rëy loola sëriñ bi doon junj bu yàgg ci ne bul yaakaar ne lu baax nit ku weex moo ko yor wala nit ku bula walla nit ku xonq nee na sa der bu ñuul bii du tegtale ne danga sam xel dafa dese walla amook dégg falay sa yuuju bu sawaadul gis mi safahatal fata wasu alfahmi kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Fallou Bousso ci tomb bi waxtaan wi yaatu lool macha euh, xam naa li ko waajale woon sax waxtu wi mayewu ko waaye nag teewut leer na mu nekkoon kon ñaareelu jotaay bi tey ci suba gi jotaay bu njëkk bi Serigne Ahmadou Mbacke moom Daaru Mouhty moo ko doon def ci wàllu pas-pas wàllu tawxiid gis nañ lim ci leeral ci taxawaay bi ci sëriñ bi am ci wàllu euh, bind ci wàllu jàngale ci wàllu dundal ko jëmmal ko wane na tamit solo san la am ndax wane na ni jëf du baax ci biir lislaam lu dul charte ya daje ca ca bokk na ca mooy ngëm gu sell moo koy lal nga ñëw ñu xam ni tamit euh, euh, pas-pas bu nekk jëf moo cay topp jëf ci biir lislaam munta nekk ci lu dul mu tënku ci charia islaam islaamiya nga leeralal ñu ko sëriñ bi naka la ko jëmmale def ci ay taalif dund ko ci wàllu jaamu yàlla yi nga xamante ni diggante nit keek boroomam la soxal ak ci wàllu jëflante du biir eh, diggante doomu aadama yi ci biir pénc mi nga wax ci ndénkaane yu ama am solo yoo xamante ni sëriñ bi def na ko jëmmale ko ci njaboot gi yooyu di yu ama am solo xam naa xataay waxtu wi moo tax rek ñu jàppoo ko foofu waaye lii moo nekkoon xaaj bu njëkk bi ci jotaay yi ñuy amal tey ci bis bi nga xamante ni ci la sëriñ bi dellu si woonaat ci réew mi dëppoo woon fukki fan ak benn ci weeru novembre 1902 sëriñ Abdou Samane Mbacké di ko euh, dundal ngir ñu am ci jotaayu fàttaliku fàttaliku dundu sëriñ bi ay jëfam ak ci yan bind lañ ci mën a jëlee ba jafe-jafe yi nga xam ne askan bi mi ngi koy romb jamono yi ñu toll bu jeexut tamit mën a wàññeeku kon loolu moo eh, nekk xaaj bu njëkk bi xam naa dañuy yëkkati jotaay bi ba xaaju ñaareel bi sëriñ bi nee na ñëpp mën nañu egg ci biir ndax eh, ñu xeewloo foofa ba eh, waxtu xaaju ñaareel bi jot ñoo ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah